kon ay koy jàpp day dóor dóor ba damay mujj man xawee na man may dugg si géew bi xam ne du baax sànni serviette bi pour tas tas combat bi benn wet la bëre zone kudd concom baaxul euh, zone am baaxul mm. waaw benn wet la bëre benn tànk la bëre moo taxoon jour boobu mu doon euh, moo tax mu accéléré la combat dañu soufflé rek mu accéléré lu mu mosulta def. waaw parce que moo tax ma ne la bu ko bu xamoon tuuti rek lu ko du lal dafay nekk bëri ba ëllëg day topp dóor bu ko neexee waaw parce il tenait pas. Mhm. bi mu toogooy jonkone di wax man mu ne ma sama tànk maa ngi mel ni xal ko dugal. waaw parce jonkon na ñu gis yow nga wax ak moom Robert wax ak moom instant yooyu yëpp ñu wax li ne bi muy jonkon dama ne man ndax arbitre yi bu ñu loon taxoon ndax arbitre du ñu gaaw siffler combat bi parce que ñii pare gu ñu pour

Hmm. il tenait pas ne à un mois du combat mois blessé donc il fallait que même c'était la première fois combat jusqu'à la dernière

mais après affaire bi divulgué wuñu ko. Mhm. mais lu de ci mu benn journal waxoon na ko. Mhm. waaw mais tenir ñu su compte mhm. waaw.